siyaar leen di leen màggal waaw. d'accord moom suñu frère la quoi moom vraiment délégué moom ku ko xam xam ni ñu ak moom ñoo bokk ndey ak baay waaw moo tax bu ñun li ñu war a def rek lañ def ah bu ñu ñëpp a war a ñëw waaw. Mhm. daal di bàyyi seen yitte yi ñëw ci li nga xamante ni moom mooy takk bi lan moo leen soodee quand même ba ngeen bàyyi seen yitte bi ñëw. waaw mais Moodu mooy Waly Waly mooy Moodu Amar waaw moom suñu frère la ni ma la ko waxee rek ba xewlee ñun ñëpp a ñëw waaw loolu lii lañ war a def waaw loolu moom yàlla quoi waaw yàlla sama diggante maag Waly moom suñu borom la quoi. papa ak doom mag ak ay cheikh lépp yàlla moo ñu boole rek. sa bëgg ci kenn dootu ko naatable mais tout le dañuy gis booy wax ci Wally Seck sa ronga ñi di taal lan mais parce que mooy li ma waxoon rek keroog boo jàkkaarloog moom ni ko yaa ñu gën suñu bopp parce que ni mu leen téye tax Wally moom mënu wax sax ci moom waaw. man man man man sama lépp la waaw vraiment bëgguma wax sax ci moom waaw dañ koy ñaanal rek vraiment man ñaan laa seqam moom quoi parce que am na loo xamante ni lu ñu mën a wax lu yàlla suñu borom dogal la waaw sama diggante moo waane xaw ma sax lan la papa doom la xam nga loolu dafa jege waaw loolu la rek waaw. barki démb dañoo tiim micro Omaro Omaro di def témoignage si yow. ne Wally daf la jëlee fenn foo xam ne fu doy waar nga defoon accident bu métti daanu troisième étage nga am ay dam damb yu métti war Wally daal otom di la wëral ci hôpital yi ba dajeeg yow faj la ba nga toll ni nga toll nii tey. mais avant loolu am na lu jiit loolu mooy li ma lay wax loolu moo mujj sama diggante mag waali du damaa defoon choc vraiment man mën naa ni la bi ma juddoo ba léegi li ma am ci bànneex sama àdduna daanaka Wally Seck moo ma ko defal waaw damaa demoon choc mais alhamdulilah Wally taxaw ci ni mu ci war a taxawee waaw vraiment. nit ñi li ñuy wax Wally dafa mën mais loolu xoolee ko ci man rek man rek doy naa misaal. lool lool lool waaw lool lool lool man rek doy naa misaal waaw dafa mën nitam moom loolu moom mooy loolu. doo ba ci yan situation yu yu grave nga nekkoon tamit parce que ñu ngi koy sentir ci ah. yan situation nga nekkoon. yan situation. nga nekkoon taxaw. Wally sang na ma sax. Hmm? Wally moo ma defal sang na ma tiim na ma sang ma ba ma set. Ah, kon loolu moo gën a rëy. kon moo ma defal. Hmm. sama diggante ma ak Wally mënu ma wax lépp man du ma wax sax ci média. mais keroog jooy lu ko waraloon lan nga fàttali ko. waaw mais parce que mooy li ma ko waxoon. li fi jaar dafa bari te Wally chaque jour ñun ñu muy àndal chaque jour mu wan ni lu mu ñu lu ñu gënee maanaam bari na loo xamante ni ku doon ñun ñun defante wala dara mais moom dafa jéggal lépp fàtte lépp man xam naa ni waa li mu doon dox ci xolam la ko jëlee vraiment dégg naa xam naa li mu doon dox ci xolam la ko jëlee mooy li ma wax Wally gëmul ku dul yàlla musique bu fi yemoon tey Wally pare na kon li ci des lépp dafa war a rafet loolu la rek wax bu jóge ci xol. est-ce que di ngeen sentir ci show bi yéen waa Faramaren puisque Sidi Diop léegi yéen a ngi yéen a ngi koy baal sax di ko di ko gën a dooleel ci li nga xam ne moom moom la sumb muy Zénith. waaw déggoo li ma la wax ki mënul wala ki amul mooy soxor mais waaye dépassé na fu muy soxore vraiment musique bu fi yemoon tey ñu xam ne wàllu pare na. waaw bu jotee liggéey na vraiment lu waaye mën a wax wax xam ne Wally bu liggéey jotee marqué na apprentim fii senegal waaw Sidi suñu rakk la suñu frère la comme ni ñu war a mën a jàppale bambale jàppale keneen loolu lañ ko war a mën a jàppale du lii di concurrence waaw fii Sénégal ku fi xool xam ne wax dëgg yàlla king bi mooy Wally waaw mais boo jekkoon nag da ngay baal nit ñi waaw bay la ñoom loolu dara Ah, si dara war na ko mën a jàppale rakam la bu ñëwee ba këram wàcce boppam tàggu ko comme ni mu defal papa Youssou Ndour defal ko ñeneen nag ñeneen bu ñëwee ci wàllu wàll da koy jégal loolu du dara Sidi suñu frère la waaw. d'accord mais ñu jàpp ni geer bi ñu bi mu doon geer ak Sidi moom la arrangé wul tamit. guerre coow li fi amoon wax coow yi am ci seen diggante ñu bari dañu ne Wally Seck la arrangé wul mais pas parce que Sidi mooy xale te moo nekk ci yoon. am na côté boo xamante ni déjà man maa ngi doog wax di taxaw jàkkaarloo ci média di wax. parce que bés bi ni mu toll la wala dara mi ngi wax sax bàyyi xel. billaay wallaay bàyyiwul sax xel bàyyiwul sax xel ko defee nag ñu tënk te xam ne dañoo ñëw ci suñu takk frère Modou Amar yàlla na leen suñu borom defal jàmm defal ko jàmm. Waly Seck yàlla na ko suñu borom doolu sutura mu sut ndayam fan sut baayam fan waaw ndax lii lépp moo ko boole jërëjëf waaw kontaan naa maa leen di di fay mes amis loo des naa waaw tey suñu xarit suñu doom rek laa ko délégué di kenn ci parce que moom nag yi dinaa seet ak suñu gars yi sëy bu barkeel yàlla yàlla barkeel sëy bi yàlla yàlla bone seen jikko bone seen wërsëg may leen jabar bu barkeel ñu mag nañ waaw man nag célibataire laa nag waaye célibataire nag bu xam lu baax laa nag célibataire bëgg lu baax nag boobu rek maa ngi casting mais casting bi léegi mu jeex nag incha allah ndax xewu tàngoo dafa métti ma bàyyi ma seeraay bi rek tak jabar benn yoon incha allah conseil xam nga nag célibataire mën na conseil marié mën na ko bañ a waane moom bi tuuti dara yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla ko yàlla barkeel sëy bi yàlla sëy sëy bi nag sëy yéen jàmm ci aras bi ma njëkk a constaté ci xew yi nag damaa ñëw dégg dégg son yu son aussi di jóg ci baax nag man ay waaye alhamdulilah rabbi alamin na ci jabar sama wis yi di jóg na ci baax ba yàlla na jàmm yàgg. wàccee seen micro yi. donc maanaam doo xam ne musique c'est la musique qui gagne c'est le Sénégal qui gagne c'est l'Afrique qui gagne et suñu yëpp xewlee lu toll ni seen i départ yi ñu ko def ba la ca Paris la Villette le 29 juin ñu ñun ñëpp ñu ko war a sax tànk tuuti xam ne bu amee ndam ñoo am ndam bu amee defet ñoo am defet ñu koy dégg na suñu grand bi naan ko rek man xaw ma man sama bopp laa gëm xaw ma keneen bu ngeen laaj kenn ngeen laaj keneen question man mii laaj question musuma ko ko def musuma ko ko bis wax dama ci te la affaire yëpp ci wàllu Wally Seck ci kàttan ci jàmm ci kàttan naa la liggéey daw ma fekk nag ma wow fii ma ñëw nii si délégué ma dafa évité ma dama ñëw bari xataan tax ma dem jënd ma yëgoo pour ma wóor ma fa dem loolu ma taal sama micro yi la wàccee. non mais mais mënoo am mënoo am. loolu concept la loolu si mënoo ci loolu. question yëg boo ak ci gëm-gëm la rek parce que boo jàppoon ma dañ anniversaire ngay dem ay xam ba si son président ma présidence c'est le chemin. côté présidentiel yéen ñi yëpp amul kenn bu ñu ko des bu ko defee ay semence ngeen man sama téléphone bi ci laa demee Nations Unies ci laa demee CEDEAO ci laa demee fépp mu war a valoriser gëmal ko ful encore nit booy saw sax nga war a soo balaa bi tooy ñëpp ñu yem sa wan boobu man foofu laa ne sa waay sa waay ëllëg laa taxaw euh, quatre quatre mois ci ci ginnaaw soo ko ab jamaay mosuñu génn RTS génn bu leer wala génn ko génn 30 secondes léegi ñoom ak RTS ñoo bokk ndey ak bàyyi man El Hadj Alane lépp di laaj topp bokkuma opposant damay liggéey li ma nekk dama public man su baaxuma politicien yor ma carte APR yor ma carte Pastef yor ma carte beneen parti mais képp ku président sa sunu wërsëg liggéey rek parce xaaral ma benn nag benn arrière benn retour te damay liggéey te yàlla tax rek comme ni ma mel ak Waly Ballago Seck naam na la jaay liggéey te yàlla tax ak gëm li muy liggéey ak foog bi moom foofu laa ne. déet mosuma ñàkk a si si jot sama xarit la si jot la may wecc la may jox sama wecc ma ko Sidi la ma lebal sama jox ma ko ndax fu ma fekk moom may way moom may Sidi moom may sagal moom mooy yëkkati sama xarit lépp jaar na suñu grand ñu ko mën a dugg ko jàpp dara ci am ni boo gisee at at suba suba yëpp fan ko éviter loolu affaire da day neexal soo rek maanaam loolu maanaam euh, euh,